photo la jor bi ngeen di gis la jor la ku xol natal bi moy photo bi la jor ngay gis ab dessinateur mo tok xol Lat Dior mu dessiner ko Lat Dior nag noonu la ko ñuy wax Albert mom mo xol Lat Dior dessiné ko defal ko portrait bobu source yi nak maa ko jele ci sama wajur muy mbey Guèye sil mom mi nga xamanteni 40 ans mi ngui gëstu dem ba fi nga xamante ni tubaab yi seen archives yi foofu lañ ko foofu lañ ko denc yàlla tel ko cee baaxe ndax lii nii ci benn journal ñuy wax Le Monde Illustré moo ko publier ginnaaw bi nga xamante ni ñoom tubaab yi ñu dellusee ñëw joxaat Lat Joor nguur gi mu nekkaat dameelu kajoor booba Lat Joor dafa àndoon ak tubaab yi doon xeex ak Ahmadou seexu Ba ndax Ahmadou Cheikhou Ba dafa bëggoon ñëw dem kajoor nangu ko maanaam songu ab xare Lat Joor Lat Joor néewoon ci lool après mook tubaab yi ñu lëkkaloo tubaab yi jàppale ko ba mu am ndam ci xare boobu muy xare sàmba Sadio mu nekkoon xare bu tar lool nga xamante ni góor yàlla googu di Ahmadou Cheikhou Ba ci la daanoo ci xare boobu ginnaaw bi nga xamante ni jàppale nan la joor waaye xare boobu ñi ngi ko tàmbale woon sàmba Sadio waaye moom Ahmadou seexu mi ngi daanu ci dëkk bu ñuy wax Jaajorde ba rombee kokki bi xare bi jàllee nag tubaab yi dañ doon ñaanal ñi nga xam ne ñu daanu woon ca xare ba ñu leen doon ñaanale ci église ba nekkoon ndar ci jamono jooju journal boobu ma lay wax nag muy euh,

xew-xew yi xewoon ci église ba Albert moomu moo désigné Lat Joor moo xool mu defal ko portrait jëmm ak jëmm mu xool Lat Joor nii ca xew-xew yi nga xamante ni ca église ba la doon xewee mu xool Lat Joor désigné ko muy photo bi nga xamante ni moom moo fës kon ku gis photo bii rek xamal ni Lat Joor la boo xoolee sax ci suufu muy photo original bi di nga gis ñu bind ci Lat Joor Kajoor rétabli sur son trône par nos troupes maanaam Lat Joor jàppale nañ ko ba joxaat ko nguuram gi nga xamante Ahmadou Cheikh Balla doon xeexal te Ahmadou dafa bëggoon a nangu Kajoor Lat Joor néew ca xeex ba tubaab yi ko Ahmadou Cheikh, dafa ngir bëggoon Nangou nangu Wanak waa nag ku la bëgg jema. Euh, maanaam riposté ndax Lat Joor booba bugguloon Ahmadou Seexum nangu Kajoor incha allah di ñëwaat ci xareb Samba Sadio boobu muy Ahmadou Seexu Ba ak Lat mais photo bii daal photo Lat Joor la te indi na fi nga xamante ni foofu lañu ñu nataal bi kon ku gis photo bii rek xamal ni Lat Joor la